rek te bañ a bari jàng ak bàyyi wax taxaw nañ sopp ci boo door kaaba nga bañ a wax jenn wax ji yëfi wa insha di chihri ak sadd way xanaam di di wax ay way yoo xam ne ajuwal ci tudd yàlla ajuwal ci ñaan ajuwal ci julli ci yonante bi tam nga bañ koo def wa tarku shurbil maa yi ak bàyyi naan ndox killaali xatashin dara ngir aw mar xanaam sopp nañ boo dee nga bañ a naan mooy dangaa mar dëgg-dëgg soo maree nag kon say boo naan wal yukthir nay baril alxaribu ab doxandeem min at tawaafi ci war kaaba ga fa innahu naka moom afdalu afdalu moo gën fii xaq yi ci àqam mën na rakoo ci julli a ah, nee na yéen ndegam doxandeem nga foofa danga fa ñoo rek jàmm yàlla bi ngay def bu jeexee da ngay ñibbi kon yow lo loo naroon na bari lay naafile ci rakka sa yow ba ko war kaaba gi ndax boo xasee ñibbi doo amati kaaba gu kafa dëkk nag moom nga xam ne saa ko neexee ñu wër moom bu ko neexee baril ay naafilaam ci na ko wa bu def na sopp li man koo xam ne jala sa toog na fil masjidi ci jàkka ja ay yatawajjah mu jublu ilal kaaba te jëm ci kaaba ga na sopp nañ boo toogee ci biir jàkka ji nga xam ne mooy al masjidul haram muy jàkka ji fi kaaba gi sopp nañ nga jàkkaarloo kaaba gi wa tukrahu def na sib al jàng al wa talbiyatu ak wax labayka fii ci war ga xam nga waxoon na léegi ne bokk na ci ñu sopp nga bari nga bañ a bari jàngal alxuraan mu far leeral rek ne kon boo dee wër ngay jàngal alxuraan mbaa ngay wax labayka ci jamono war gi yooyu yaar taamoon ko ci boo de wër boo dee wër daal moom ñaan ak julli ci yonent bi rek lañ gën a waaye jàngal alxuraan ko labayka yëpp moom mën nga ko bàyyi rek boor ba noppi arruknu ponk ba ak taalis ba aji ñetteel assaayu mooy dox safa diggante safa wal marwati ak marwa sabaxata ashwaatin juróom-ñaari wër yëpp dafa dana tàmbalee bi safa ci safa wa yaxtimu tamit mottalee bil marwati ci marwa nee na bokk na ci ponki aj maanaam bokk na ci farate dox safa marwa juróom-ñaari yoon lañ koy dox da ngay ci safa daal di dox ba ci marwa muy wenn yoon ba bàyyi ko ci marwa ñëwaat ci safa mu yaar xam dem aw yoon la wañu ko a yoon la mooy ko yaa ontu dana wañi albat a ah, dem ba shawtan mi aw yoon war a caata dellu si ba it shawtan mi aw yoon dem bi yoon la dellu si bi aw yoon la nga def ko ba mu juróom-ñaari yoon nag wala yasixu du wér illaa bi tawaafin dara ci jiitu ak wër kaaba maanaam ndox safa marwa foo ko fekk ak wër kaaba da ko war a jiitu waaye moom dong war laa jekki-jekki rek dox ko moom dong faaw rek nga wër kaa noppi sësale ko ci ñu sësaloo ñoom ñaar loolu ab sart la ca wala yushtaratu deful sart an yakkoona bu nekkee ak tawaaf wër ga waajiban di aji war ah, bi mu nee la dox safa ak marwa faaw daa war a topp ak wër kaaba la wax ni néewuñu faaw nag wëru kaaba ga day nekk gu war bu nekkoon wëru naafila itam mu baax waaye nag du ko tee sonle ndax su fekkee dox safa ak marooga dafa topp wër kaaba goo xam ne naafila la kon dañuy sart nga baamuwaat ko ndegam sore goo waaw bu fekkee ne baamuwaatoo ko rek ba ñibbi sam réew mbaa nga dem ba sori rek ak goo sam réew waaye sori nga waaw su boobaa kon deret dana la ca war hmm. bu def na sopp fii ci dox safa ak marwa churutu salaati sarti julli xayral istiqbaal dara jublu xibla a wax ne boo dee dox safa ak marwa sopp nañ ca mboolem sarti julli ba mu des jublu xibla xanaam jublu xibla moom bokkut waaye amee laabu xades ak laabu xabas ak sàng awra yett yooyu sopp nañ ko ci nga dolli ca nag wal mukk ak sax wala nga ne wal mukk ak taxaw rek moo gën a nopp moo gën wal mukk ak taxaw ala safa ci safa wal marwati ak marwa waaw ah, loolu sax am na ko bañ sax sunna xanaa boo jàng te loolu loolaa ci nekkoon maanaam boo àggee ci safa tey góor nga yëg ba ca kaw jàkkaarloo kaaba gi boo àggee ci marwa itam noonu nga def noonu yëg ba ca kaw jàkkaarloo kaaba gi waaw ah, lu ci nekk ko wala ci ñu sopp moom waddu xaw ak ñaan alayhima ci seen kaw maanaam boo taxawee ci kaw safa mbaa nga taxaw ci kaw marwa nga ñaan ñaan gooy ngay ñaan ba tey dañ ko wàññi woon ci sawru si xaar muy sunna fii da ko fi wàññi ci ñu topp wala sa fi daalika déet muy nekk ci loole xaddun ab limite mu ñaan ngi la wax ni amul yamukaay moom na ngay ñaan rek la nga mën wala yaxdar na wattandiku mimma ci la nga xam ne yaf xaluwa dana ko def baaduhum lenn ci ñoom minal jar yi ci daw te mina safa tàmbalee safa ilal marwati jëm marwa wa innama yusrixu naka dana gaaw rek a arrajulu góor doonal marati ci lu jigéen baynal miilayni ci diggante ñaari poto ya al axdarayni yi aji a tax waaw nee na ni ñeen boo dégg ñu naa daw safa ak marwa daal ñu ko jàppe noonu nga xam ne ñu fëxi rek safa ba ci marwa te loolu jubluwuñ ca loolu dañ ne boo dee góor daal am na lu ñuy wax diggante ñaari miil yu na tax ya boo tolloo seen diggante moom bëgg nañ nga gaaw boo weesu ko boo ko weesoo doxaat na nga mën neti woon rek agsiwaat ci ñoom te sax ngay góor ne bu dee jigéen moom wuñ ci moom loolu wala warama la donte laggoon na fii jamihi sa'ihi ci mboolem ak doxam safa ak marwa aji sa axoo mu dooy ko waxat asa ate ñaawal na teggeen wakkasaani ki nii la wala mu yarmal donte laggutoon bil kulli yëti ci lépp waaw nee na xam nga dañ laa digal lee nga dox ko lee nga daw xaw koo daw mu ne nag léegi fekkoon na ngaa far lagg lépp xam ne yow mooy rëcc gaaw ñaar ñaari mbir yooyu lépp la nga def noonu koy du ko tee doy waaye kon ñaawal nga te teggeen def nga lu ñu sib daal ba tey nee na bu fekkoon ne ba nga tolloo sax ci diggante ñaari sax yi sax jotoo ko gaawantu nga fa dox lépp ndànk rek ba tey loolu ba tey ñu sib ko li gën léegi mooy lu ñu ko sante nga defee ko noonu arrukunu ponk ba arraabi bi aji ñeenteel alwuquufu mooy taxaw bi arafata ci arafa saaxatan aw waxtu min laylatin naxari ci guddik tabaski ga waaw nee na bokk na ci faratay aji guddik tabaski gi maanaam buñ ne guddik fukkeel gi rek lañ jublu xam ne bu dee daal borom ci noonu nga xam ne kon bu ñu subal tabaski daal moo moo kon loolu mooy guddi bisu fukkeel bi daal bu ñu ñeenteel daal guddi ga ca toog mooy guddi fukkeel guddi googu nag balaa jant balaa fajara fenk la dalee fa jant ba soyee balaa fajara fenk nga taxaw arafa lu mu néew néew te jublu ca xam ne yaa ko ci jublu moom boo boo boo romboon sax jàll rek te jublu ca taxaw itam mu daal di koy doon lu mu gàtt gàtt rek loolu farat la ci xam ne su fekkee fajar fenk na te loolu rek aj raw na la ci at moom ba déwén nga fay si ko illaa an yakkoon rek dafa nekk ah, ah, wal taxaw ga raakibal mbir muy aji war afdalu moo gën illaa an yakkoon rek dafa nekk bi daabati yi ca daabaam ja xudul ngant ne nañ koy tuddee taxawaay lañ jublu mooy boo amee daaba nga war ci kaw daaba ja te taxaw sa tànk su fekkee amoo daaba mbaa daaba ja dafa sonn daa am ngant nga taxaw say tànk su fekkee loolu xaw naa jafe tam nga nga door àgg suuf nag moo tax ni wal xiyaamu taxawaay ba afdalu moo gën mel julloo si ca toog togg wala yoo ci gis lu toog illaa li taxa bi ndara ngir coono fekkee sonno rek na nga taxaw te bañ a toog wal wuquufu taxaw gën naxaaran ci bëccëg ma imaam yi ànd ak ilimaan ba waajibun waru gar la yu jubaroo def na ko jàng bi dami ci deret ida taraka wa ndem bàyyi na ko nee taxaw bi ñuy taxaw maanaam bu ñu xasee boole tisbaar takkusaan ci jullikaay arafa ba dañu ànd ilimaan daal dem taxaw xaat te jant bi soxagut taxawaay boobu taxawaay bi ñu taxaw te jant bi soxagut nag la wax ne warugar la soo ko bàyyee am alamaan gannaaw bu jant ba sowee taxawaay ba ngay taxaw lu néew néew nag ok loolu mooy farata ja faslu li ak dog la alxumratu xumra sunnatun sunna la fil xumra ci dund maratan wenn yoon waaw nee na xumra nga def ko benn yoon ci sa dund sunna su dëgër la boo ko si def benn yoon nag at mu ne bu la neexee defaat noonu ñu sopp rek yem ci waaye sunna si moom benn yoon bu njëkk bi moo koy doon wa arkaanu xaa ay ponkam arkaanul xaj mooy ponk aj maa xadal wuqoo fa ndare taxaw arafa waaw nee na ñoo bokk ay ponk moom aj aj dafa gën a rek ndax umra moom boo yéenee te mooy armal daal di wër kaaba muy ñaar nga dox safa ak marwa watu rek moo cay topp ngay watu rek mu daal jeex foofu noonu dong la toll aj nag moom moo am taxaw arafaat sànni jamra yooyu yëpp mu gudd lool ay yett yi moom ñoo ko bokkule te moo aj wala xaaj ñel na ko miixaataani ñaari miixa makaani yun ko jug béréb waxoo te moom miixaatul xaj mooy miixam aj ma leen am na ñaari miixa maanaam béréb biñ ko war a armalale ak waxtu biñ ko war a armalale bu dee bu dee miixam barab mi maanaam béréb bañ ko koy armalale moom nee mook aj ñoo ko bokkule woon la waxoon ci gannaaw ne mooy mii xam aj rek ba tey mooy mi xam umra illaa fi xaq man dara ci àqi koo xam ne xoo moom du makka te nekk na ci makka fa innahu naka moom yuxrimu dana armale xumra minal xilli ca àll ba xill mooy fa nga xam ne bokkul ci xorom ji nga xam ne sañ nga fa rëbb rey fa warab bu fekkee ne nekkoo di armal nekkoo ci armal alxaram nag mooy fa nga xam ne moom sañu sufa sañu sufa rey warab benn yoon moo xam armal nga moo xam armaloo dafa ne fi mu wutee nag mooy bu fekkoon aj la nga nekk biir màkka bëgg koo armalal moom aj kon du jar ngay génn ba ca samiixa danga koy armale ci biir màkka loolu la waxoon mu ne bu dee xumra bi nag moom te nga nekk biir màkka faaw nga génn li xurum ji ba noppi ba dem ba ca xilli ja mooy la bokkul ca xurum ja xilli ja moom foo ko armal rek foofu armale xumra rek mu baax am na fuñ ci gën a taamu na waaye foo ko fa defee rek mu baax mooy wal afdalu la gën ay yuxrima mooy mu armale minal jihir raanati ci jihir raana hmm. ay nee na fa ñu wax jihiraana mbaa tanxiim daal yooyu yaar mel ne mun gën a taamu ca xilli ja ci nga armalal fa umra wa zamaniyun ak ko jub jamono mi xam jamono mooy waxuwa moom nag jamihu ayaami sanati mooy mboolem bis at mi bu fekkee armaloo aj daal moom umra moom bis ba la neex rek ci bis at mi mën nga ko caa armalal moom umra boo xasee armal aj nag moom kon ngay bàyyi ba yooyu ko ci aj ga waaye bu fekkee di armal aj moom kon bis ba la neex ci at mi rek mën nga caa armalal xumra wa sifatul ihraami melow armal ga bihaa ci xumra min istihbaabil xusli ci sopp ca ngaay la wa tanzihi ak setal setal ga wa maag la nga xam ne yàl ba soxoo dana ko sol wa maag la nga xam ne yaxrumu dana araam alayhi ci moom min a libaas ci col wa tibi ak gët wa xayru zalik ak lu dul kal xaj mi ngi aj nee na nit ñi armalale aj rek ba tey moom ngay armalale xumra ñoo bokk lañ ci sopp lépp niki cangaay la cangaay sax sunna la sunna lañ ko ñëwoon ci yenn téere yi ak lu mel ni wat yenn kawar yeeg setal yaram yooyu yëpp ak ñàkk gaa sol yére yu ñëw ak aay gañi aay lat ko lañ moom nee na añ ñoo ko bokkale wa yukrahu def na sib takraaruha ak baamam fil xaami ci at mi alwaahidi mi di menn menn at mi nag nee nga umra ci yaar yoon ba yet tàmmuñ ko li mu taamu daal mooy at mu ne nga def ko benn yoon rek boo xasee weesu benn muy sunna at mu ne ma ne def ko benn yoon rek te bañ koo baamu nag ci mel at mi lu mu ñaareel mbaa ñett wataf su wataf su dina yi ci booloo wama ak la nga xam ne fii ma anaahu nekk na ci maxnaam booloo isa waqaxa ndeem tàbbi na xablan xidaayi arkaaniha ci njëkk matuk ay ponkam in xidaa jeex lay firi waaye muy mat rek dafa wax ne li fekk noppee goo ci ponki xumra yi jote jote googu su amee rek joti góor a jigéen su amee daal yàq umra gi ay ponkam nag mooy armal ak wër kaaba ak dox safa ak marwa yett yooyu lu fekk amagul rek kon bu jote gi amee daal ko yàq xaatimatun li ab mottali la isa xaraja ndeem na mën a génn al insaanu nit ki mi màkka te tukkee màkka fal takku na nekk niyatuhoo yéeneem waxas yimatuhoo akuk dogoom akuk dogoom ziyaarata nabi di siyaara yonante bi sallallahu alayhi wa id ngir siyaaratuhu ak siyaareem sallallahu alayhi wa la mujmahun suñu suñu dogu xaleexaa ca moom wa fadilatin te nganeel la muraqabun suñu suñu xemmem la fii xaa ca moom nee na boo ajee màkk ba noppi dañoo bëgg wala ngaa ñibbisi nga dem madina siyaar yonante bi te su boobaa nga am dogu gu sell ak yéene ju sell ci siyaare ko dong tax laa jóg ndax nee na siyaare ko moom sunna suñ dogu la ne am na nga ne lool am na sax ci saraay bi mu ne hadis ba na man zaarani ba'da mawti fa ka annama xam ne ma ci gannaaw bi ma génnee àdduna mel na ne siyaare nga ma bay dund am na fi ne man xajja wala mu yasur nii fa xad jafaani anaam koo xam xam ne añ nga màggate siyaare woo ma kon danga ma ñàkkee teggeen waa Sénégal dañoo aadawoo léegi moom jaari Madina siyaare def fay fan door a ñëw màkk nga xam ne bu ñu jógee màkk dañuy ñibbisi rek seen aada fa isa am maxoo ndéem jublu na ko azairu aji siyaare ja laa yushriku du bokkaale maaxoo ànd ak moom xayrahoo ku dul moom xayra xoo li ànd xoo ngir nako yonante bi alayhi yàlla doolee nekk ci moom asalaat dooli taral wasalaam ak doole woolu mat boo xam ko ñu topp la laataa bi xam du aji topp nee na boo ko bëggee siyaare ji moom na la tax a jóg moom dong waaye bu fekk nga am yow yitte far ko ca laafaale yonent bi daa war jiitu ñu topp ko waaye war laa jiital dara toxal ko ca wa bu def na sopp an yan si la mu wàcc xaarijal madinati ci bitti madina fa yata tahara te muy sangu wa yata tayyaba te muy gëttu wa yalbasa te muy sol ahsana thiyaabi yi i jaarafeti ay yéreem nee bëgg nañ bala nga dugg biir madina nga wàcc waaj ba jekk maanaam sangu laalat ko lañ sol yére yi gën a rafet su ma isaa daxala topp ndéem dugg na almasjida jàkka ja bada mu njëkke bi rukoo ci julli in kaana dem am na waxtu waxtu yej tajusoo dana dagan fii ci moom al naafilatu naafila wa illaa ndéem waxtu wa daganuta naafila bada akon mu njëkke rek bil xabri ci xabru ba al sharif bay aji tedd nee na boo dukkee jàkka yi ma jàkka yonante bi te fekk mu waxtu wa dagana naafila kon na ngay julli ñaari rakka njëkke nuyu yàlla ci boppam yàlla mi borom néewi doora jàll nag siyaare xabru bi su fekkee day waxtu woo xam ne daganut a naafile nag kon nga jékki-jékki daal di jublu rek ci xabru ba daal di koy siyaare wala yal tasixu du jonjoo maanaam du ñuuxu bi ca xabru ba nee na ci xëy ba tax nga ñuuxu ko mu ëpp waaye stadbiru tamit te dana wan gannaaw alxiblata xibla waaye saqbilu def te muy jublu alxabra xabru ba asharifa bi aji tedd nee na ngay jàkkaarloo xabru bi bul bëgg a jublu xibla ba tax nga gannaaw xabru bi ngay jublu xabru bi rek boo wanee xibla gannaaw du wàññi dara wa yaqul te mu wax ne assalaamu jàmm yàlla aleyka yàlla na ci yow ayyuhan nabiyu yow yonente bi wa rahmatullahi yërmaane yàlla wa barakaatu ak i barkeem di nuyu yonente wax assalaamu aleyka ayyuhan nabiyu wa rahmatullahi wa barakaatu suma yete naxaa topp dana dandutu xan yaminihi walis ndeyjooram naxwa diraahin lu tolloo xasab fa yaqul te wax ne assalaamu jàmm yàlla aleyka yàlla na ci yow yaa aba bakar yow aba bakar as siddiq kadib dëggalaa suma watana xaa topp dana dandutu ila yam yi jëm ci ndeyjoor ay dan ba tey naxwa diraahi lu tolloo ko xasab fa yaqul te mu wax ne assalaamu alayka jàmm yàlla na ci yow yaa aba xafsin yow aba xafs xomara te mooy xomar alfaarooxa tey teqalikatub dëgg ak fen waaw ah, xam nga béréb boobu fa lañ denc Aboubacar ak Omar radiyallahu anhuma kon nag boo siyaaree yonent bi ngay topp dootu ci saytu ndeyjoor lu tolloo ko xasab foofa tolloog Abubakar nga daal di koy nuyu toppaat tuut lu tolloog sa wetu ndeyjoor ba tey mu tolloog Omar nga daal di koy nuyu wa yusallimu te muy nuyoo kullama daxal saa yu dégg saa yu duggee wa xarajate mu génn li wax ne nag day nuyoo saa yu duggee génn xam ne kon da ciy jublu su duggee ba nuyoo def la mu war a def bu génnee ba ñëwaataatit it rek mu defaat na mu defoon loolu nag borom sara da ko sarawut waaye xëy nañu ñu gisaat ko ci beneen sara xam dana am lu mu ci waxam dit albaabu lii mooy bunt bi as saabion bi ak juróom ñaareel fil udhiyati ci tabaski wal xaqiqati ak gàttu tudd gàtt bi ñu tudde doom wa dabxi ak rendi yett yooyu la bëgg boole ci bunt bi amal ah, udhiyatu daal tabaski fa hiya moom maa mooy la nga xam ne yu taqarrabu def na jegeñloo ba def na jaamoo bi dakaati yi ci rendeem minal anhaami ci juri kër yi yowmal adha ci bisub tabaski ba wa taali yeey ak ñaari way toppam nee buñ nee tabaski mooy li nga xam ne buñ nee weeru dul hijja maanaam weeru tabaski am na juróom-ñeent ba ca topp muy bisub fukkeel ak ñaare ca topp muy fukk benn ak fukk ñaar ñetti fan yooyu la nga cee ren te jublu caa jaamu yàlla loolu moo tudd tabaski bu newoon tey ji di dibeer mooy bisu fukkeel bi ci weeru tabaski kon tey ji di tabaski mooy bis ci njëkk te moo ci gën ci nga rendi waaye suba muy fukk benn boo ci rendee ba tey am nga tabaski gannaaw suba itam noonu boo rendee am nga tabaski ñetti fan yooyu nag bu jant bi sooyee ci bisu ñetteel ba nag waaw suba baa nag tabaski jeex na ba déwénati la nga ca rend caa jaamu yàlla loola ñett fan yooyu loolu moo tudd tabaski buñ ko rendee foofa ca Makka ak Minan nag addiya lay tudd xëy na waxiya moom sunnatu sunna la alal mustatihi ci aji attan al xurri ku di gor al muslimi ku di ab julit kaana moo xam nekk nag kabiran di mag aw saxiran wala muy gone dakaran muy góor aw unsa wala muy jigéen muqiman muy aji sax aw musaafiran wala muy aji tukki waaw nee na tabaski moom sunna la ci ko ko man man mooy njëwug tabaski ma doo dem ba looro ci mukk ci sa dund bopp mbaa sa colug bopp mbaa sa njaboot tam seen dund mbaa seen col bu fekkee at mi da nga dem ba looro ca njëgg daal ne tey ji su ma ko yoroon def ko ci saa bopp ndax loru naa ci lool mbaa ci sama njaboot ci lu mënta ñàkk ci dund mbaa col mbaa dëkk waaw su boobaa yow la neexee rek nga def ko noonu ndegam bëgg nga tuyaab rek waaye yooyu jamono mën ngaa bàyyi ndax yow mën nga wax yow kon amoo ko teewul nag bu la neex itam rek def ngir sàkku tuyaaba bañ a dem ba àgg ci kooku mën dëgg-dëgg te kookoy gor tey jullit bu dee jaam génn bu dee yéefar moom waxaale wuñ ko ndax dañuy sàkk ci moom mu dugg ci lislaam ba noppi door a def nag xeeti jaamu yàlla yi tabaski nag moom seetuñu ci mag ak gone moom bu dee mag ak bu dee gone ñoo bu dee góor ak bu dee jigéen ñoo moo xam day tukki moo xam tukki wut fi dañoo aada woo borom kër rek ñoo tabaski li ci ba ci gone yi sax gone mën naa gone ak mag yépp ñoo ci moom góor a jigéen ñoo ci yemoo wa xayra xaajin kog du aji aj bi minan ci minan waaw nee na nag day fekk moom nekkul di aj ca minan bu dee aj ca makkaan minan moom li ñuy wax addi yu maru tudd léegi loolu lañ ko fay def defloo moo tax xam naf si yi walis boppam waxaa man ak walis ka nga xam ne tal samaho dana ko war nafaxatuxoo dundam ba kal awlaadi niki doom ya wal abaay ak bàyyee alfuqaraay ña di way ñàkk waaw nee na tabaski nag danga nga koy defal sa bopp sa doom tam bu amee alal mën nga ko defal ci alalam bu la neexee tam defal ko ci sa alali bopp sa ndey ak sa baay bu fekkee mënuñoo tabaski seen bopp te yow nga mën leen tabaskil ba tey nga tabaskil leen ñi nga xam ne nag yéen a bokk wenn rëddu kër yi moom te yaa leen di dundalaale donte dund ko sax yaa ko coobare waaye waru la ñoom mën nga leen a far yéene waale ci men tabaski mi ngay rend rek mooy mën nga leen yéen ci tuyaaba ji rek ci men tabaski waqtuha waxtoom baxda naxaril imaam nekk na ci gannaaw rojug ilimaan ba min yow min naxar tàmbalee ci bisu tabaski ba nee bu fekkee bisu njëkk bi la maanaam bisu fukkeel bi kon waxtu mooy gannaaw bu ilimaan jullee ba rendi yow nga door sañ waaye bu fekkee ilimaan am na te génn woon na tabaski ma ba ca béréb ba ñu jullee boo ko njëkkee rendi moom doo baaxle ba tax mu naa fa man zabaxa ku rendi xablahoo ci njëkkam la mu gis du ko doy daga moom farlu woon na ba yóbbaale tabaski ma ci fa ñuy jullee xaaroo ko ba mu rendi xanaa njëkk ko rendi moom doo baax baaxle su fekkee génnewu ko woon nag mën ngaa ñibbi su kër boo tolloolee ba jàpp ne war naa rendi rek nga rendi yooyu jamono boo ko jiitoo du ko tee baax moom waman ñi nga xam ne laa imaama déet ilimaan lahum di leen fal yataxarraw na ñu nattale salaata aqrabil aimati julli gën jaa jege ilimaan ya ilayhim jëm ca ñoom wa naxrahu akuk lojam ñu wax nag ne laan loj bokkut ak rendi rendi moom mooy li nga xam fii ñu koy defee paaka wala lu ko muro loj nag moom daam jumtukaay boo xam ne soo ko jamee ci xóot-xóot dënd bi rek ba mu daal di àgg ca xol ba mu dal di faatu loolu mooy loj waaw hmm. moom moom dañ ko tudde loj daa wax ne rek ñoo xam ne amuñu ilimaan du aajowoo ñu yónnee ci dëkk bu am ilimaan mën nañoo toog rek ba tolloo ci seenum xel ne dëkk sàngam ñoo gën a jege ci mboolem ilimaan yi te ku fa dem war nañoo rendi suñ demee ba jàppaloo ci seen xel rek bu ñu rendee itam mu baax gannaaw buñ ko jiitoo itam du wàññi dara waxalil muraadu ndax lañu nam bil imaami ci ilimaan ba imaamu salaati mooy ilimaan ba jiite julli ga rek awil xabbaasi wala xalifa bu mag ba xawlaani ñaari wax ah dañoo wutee ci ndax buñ ne sañ laa jëkk rendi sa ilimaan ndax ka jiite julli ga rek lañ jubloo wax wala xalifa bu mag ba nga xam ne mooy jiite jullit ñi wax ji gën a wér mooy ilimaan ba jiite julli ga rek ndax léegi daanaka amatul xalifa bu mag boo xam ne mooy jiite ñëpp ñëpp ci jullit ñi kon mën nga ne rek ilimaan ba jiite julli ga moom ngay seet ak rendeem te bañu koy jiitu wa man dabaxa ku rendi xabla yow mi naxari ci njëkk bisub tabaski bi aw yow man naxari mbaa ci bisub tabaski bi baxdal fajri ci gannaaw fenku fajar xabla tuluuxi sams ci njëkk fenku jant la mu ci du ko doy waaw nee na boo rendee te bisu fukkeel bi ñëwagut du baax bisu fukkeel bi itam bala ngaa rendi lu néew néew na fajar fenk bala ngaa rendi faw na nga xaar ba jant bi fenk boo rendee te fekk jant bi fenkut ba tey du doy wa aqallu maa gën jaa ñëw da nga xam ne yu ci dana doy fi daxaayaa ci tabaski yi minal asnaani ci ay at ci tolluwaay at mu nga ne minal asnaani ci maas lañ koy wax ci wolof al jazam mooy jazam min ad-da'ni ci xar wal maasi ak bay wax wate moom ibnu sanat ni mooy doomi at nee na bu fekkee da nga tabaski xar wala bay te xar ak bay moom moo gën ci lépp lu ñuy tabaskee moom nee na kon bu dee xar moom boo amee at rek doonte benn fan la dugg ci atum ñaareel ma itam mu baax na bu dee bay nag moom ñu bëgg mu am at ba dugg ci atum ñaareel ma dugg baax a baax mel ni weer jëm ci ñaari weer wa tan yu ak fan mu minal minal baqari ci nag waxu moom maamay wa nga xam ne daxala dugg na fi sanati ci at ma ar rabihati ma aji ñeenteel maanaam nag des na ko tabaskee gëléem bu la soobee teewul nag xar ak doy ñoo gën ndax yàpp bu baax lañ gën a taamu waaye nag bu la neexee tabaskee nag wala gëléem su boobaa bu fekkee nag ngay tabaskee lu mu néew néew na am ñetteet bu dugg ci atum ñeenteel wa tan yu ak san yu minal ibli ci gëléem waxoo moom maa mooy ba nga xam ne aw faa matal na xam sa si nii na juróomi at wa daxale te mu dugg fi saali sati ci atum juróom-benneel maanaam bu fekkee gëléem nga bëgg a na am juróomi at lu mu néew ne ba dugg ci moom juróom-benneel lu ko yées rek du doy tabaskee taqaa def na wattandiku fi ci tabaski yi wala xadaaya ak xaddu yi bu sikk yëpp nee na xamal ne tabaski wala lañu ren ca makkaan mu neen muy addiyu ak jaamu yàlla la su boobaa mboolem sikk koy teelooy sikk koy teelooy day waral moom nga moytu ko ndax bu ci amee lu doy am yeneen sikk yoo xam du ko teelooy waaye moom it boo mënee fexe ba mën jaam rek moo ndax ndegam lu ñu jaamu yàlla la kon mat sëkk moo ci ci kaw loolu falaayu ji si du doy fi daxaayaa ci tabaski wala xadaaya ak xaddi xawraaw aji pat wax ya moom allati mooy ba nga xam ne dahaba dem na nuuru ihda xay nay xaa leer benn ci ñaari bëtam yana jàppal ne bu fekkee ne jur ga dafa pat te mooy benn bët ba leer ga dem na maanaam benn bët bu du gisati su boobaa du doy tabaski du doy addiyu wala maridatun du caagoon aji tawat maradam tawat bayinan ju aji biir bu fekkee dafa am tawat ju wér ba nga xam ne bu àndeeg moroom nga xàmmee ko ci ba tey ko nu doy wala xarjaaw du caagoon aji làggi xarajan ak làggi bayinan gu aji biir maanaam bu làggee bañ mën koo xàmmee bu baax nga xam ne bu àndeeg jur ci des nga gis nu muy sooxe kooku ba tey du doy wala xaju faaw du caagoon aji làpp làpp mooy woy bopp moo tax mu ne waxi yow moom allati mooy ba nga xam ne laa cheikh ma déet nebbon mooy déet gërees muy nekk ci moom waxee na ne yow moom allati mooy ba nga xam ne laa muqa déetu wuq fii xisaam yi xaa muy nekk ci yaxam maanaam bu làpp boobu dañ cee wutee daa am wax ne mooy daa yooyu ba amul am ñu daa yooyu ba nga xam ne yax yi ci bopp mu amul wuq lu mu ci mën doon daal jàppal ne bu yooyee bopp moom du mat tabaski du mat addiyo bu mat am tudd doom itam daañu ko leeral ci xëy na ci tudd doom bu caagee wala mashquqatul uduni du caagee nu bu ñu xar ab nopp illa an yàkkoon rek bu dafa nekk ak chaqu xar-xar ba yasiram di aji néew wax wate moom ak tulus mooy tulus nee na nopp bi bu xaree du doyee ci tabaski wala addiyu lu muy nag xar-xar bañ a bari bañ a bari mooy boo ko defoon ñetti xaaj la xar benn xaaj lay tollal ci ñett ña mbaa du ko mat sax far wa kazalika ni xat xul dagg nopp ba laa yu sudooy ilaa an yàkkonte bu dafa nekk yasiran di ba tey nee na bu fekkee ne nopp ba dafa dagg bu néewee ñu jégale ko waaye bu baree duñ ko jégale néew nag mooy la dagg boo ko defoon ñetti xaaj benn xaaj looy looy toll mbaa ko mat sax far su boobaa ñu jégale ko wa kazalika naka noonu dahaabu aksari dana bi demug la ëpp ca geen ba genn ganaar boobu tax muy wax genn gannaaw boobu dañuy jàpp ne moom ceer ba sax bu ca daggee du doyati ndax moom lam jéggale ci yooyu jéglañ ko ci moom maa lay aajowoo lañ ciy jéggale bañ a mat ceer ba la ca dagg bañ a mat buñ ko defee ñetti xaaj bañ a mat benn ba waaye su xasee mat benn ba rek sax rawante bi mopp ko moom duñ ko jégalee de wa kazalika naka noonu mag saratul xarni ku ñu dam déjjën in lam yebra andee wërut fa in bari andee wër na aji saa mu doy maanaam bu fekkee jurgooga déjjën dafa damm su wérut du baax su wéree nag moom baax na wax jooju ne moo gën a leer ji ne dana bu fekkee ma ngay nàcc lu bu fekkee nàccul baax na yéen ci saahir sa noonu waaye ni waxe fii rek moo gën a wóor maanaam mu daal bëjën ba demee waaye wér na kon baax na waaye su fekkee wérul rek kon du doy wa amal xaqiqatu daal gàttu tudd fa mustahabatu lu ñu sopp la way ñë moom nag ak dabihatu mooy la ñuy rendi allati la nga xam ne tudd baaxu def na ko rendi yowma saabixi wilaadatil mawludi ci bisub juróom ñaareelu juddug liir ba waaw ah, nee na lañu rendi ci bis ba nga xam ne liir bi mu juddoo tey am na juróom-ñaari fan ci tey lañu rendi ci bañ koy tudd loolu moo tudd gàttub tudd juróom-ñaari fan yi nag kenn du ci wàññiwaale bis ba nga xam ne ci la juddoo bu fekkee ni gannaaw fajar la benn waxtu wi ngay jàngee nga xam ne gannaaw tisbaar la jëm gannaaw takkusaan la ku judd ci waxtu yi dangay wañ juróom-ñaar te bañ cee boole tey ay wañ juróom-ñaari fan te tàmbalee ko tey jii wax moom àllarba la kon ngay tàmbalee alxames di wàññi boo tàmbalee alxames nag juróom-ñaar yaa ngi daan waat tey jiiti àllarba wala mooy def ngénte lu ci bari muy doon bis boobu juddoo ba dellusiwaatee mooy te doo ci wàññi waale bis booba. bis ba ci sus ngay tàmbali woon juróom-ñaar loolu nag mooy def boo agsiwaatee ci bis ba mu juddoo woon rek mu daal doon juróom-ñaar mel ne kon ngénte bis ba déllusé lay doon waaye nag su fekkee dafa jiitu woon fajar ngay wàññiwaale bis bi mel xam dafa juddu woon biig ci.